expliquer ma loolu lan la moom parce que ñun a eu beaucoup de surprises. <laughs> non mais là là la musique moom ay valeur sûre mhm. gens en général qui sont euh, engagés ci bëggal nit ñi nit ñi bu ñu stressé ñoom la ñuy déglu bu ñu amee problème social ñoom la ñuy woo euh, bu ñu amee naxar ñoom la woo. donc euh, c'est normal depuis tout le monde le monde ah man ministère man <coughs> Bob Marley ñu ngi ci Michael Jackson a ngi ci Youssou Ndour a ngi ci yow ay dem si yàlla si rek nga commencé ah Bob Marley lépp li la eh, da rek yow ministère il faut nga noo ko nar a ak parce que ñooñu bi ñu fi jógee ba léegi saa dégloo euh, non seulement da ngay bëgg mais seen conviction des te li ñu doon wax en fait moom moo fi des ba léegi mm-hmm. ay visionnaire lañ donc li am solo ci àdduna mooy euh, dund da nga koy en je pense que nit yàlla bu la joxee nga am accès ci xolu nit ñi. Mhm. da nga xam loo fay saxal. Mhm. tu vois ba artistes en général dañoo yàgg saxal jàmm ci xolu ni ñi. Mhm. bon euh, je, je remercie au passage en fait Diop euh, euh, structure di def pour jox artistes sénégalais encore beaucoup plus on statut beaucoup plus de crédibilité il y a un long à faire mm-hmm. donc ministère bi ministère jàmm la amul xuloo amul xeex mm-hmm. waaw képp ko am ñaxtu ah, mm-hmm. loo fi indi parce que tamit def nañ ko ba pare xam-xam Youssou moom wóy na lépp lépp loo xalaat ci naqar. macha allah <laughs> wax na ko. Ah. Euh, bëggee ak yëpp yëpp tàngaay boo déglee musique la. <laughs> mais c'est pas pour rien que Planton di wax la musique adoucit les mœurs. c'est ça dafa moom da ngeen fi laal boxtam bi muy wax. dem dem fan dem dax lan. liberté bàyyi ko moom. ñaata année après. moo ah? wone bàyyi ko moom. moo wone donc dem ngir. c'est des questions. Mm-hmm. mooy wone toujours encore seen seen engagement ak vision. vision c'est important. donc donc en fait euh, vendredi incha allah. Mhm. Euh, au jardin des Almadies dañuy ñëw présenter à peu près suñu histoire musicale. Mhm. Euh, fa ñu tàmbalee lan moo ñu yàgg influencé ba li ñuy tëgg léegi lan la. Mhm. parce que tram boobu c'est important nit dinañ la gis rek sele bi benn clip ñu gis wala ñaar bay gens savent pas ñi ñu ngi la naan ay. France nga juddoo xaw ma et cetera si d'abord bii. la ñu yow moom lu ne lañ moo tax moo tax au fait même aujourd'hui je parle en parce que c'est important encore une fois. image non incarné wuñ fi de toute façon nit mënoo mënoo soppeeku. Ah. xam nga. image nag dafa am waaw mais loolu man séeréer laa ah, ndeysaan retrouvé wu poox laay juddoo yéen gis nga bàyyi leen dañu jàppee ay dof fii ku nekk ak li la yàlla jagleel tey nag damaa feebar moom munuma wuy ku nekk yàlla la séeréer yi ah yàlla dal leen jagleel classe R te muñ ci dara classe R bi ñuy rouler c'est pas forcé du ay du affaire booy c'est un R qui est hmm. ñaw làkk bi waaw di la séeréer non du loo xam ne da nga fii di di waaw ca Senghor la tàmbali waaw la. donc la bëgg. waaw waaw loolu dara loolu dara nga di seen air qui est. qui est vélaire ñaw. waaw dafa am air vélaire ak air uvulaire maanaam air bu ñu waxee si gorge ak air bu ñu waxee fii. vélaire ak rétan. waaw loolu daal waaw waaw loolu yëpp daal encore une fois vendredi on invite les mais fan la fan la ñuy fan la ñuy déstressé incha allah. Mhm. Euh, dañ ñëwaat présenter album base bu tudd The Love Diversity. The Love. Diversity. Mhm. Euh, làkk yi bëgg ñoo gëmal ni tubaab sénégalais. Ah, mun lépp nag. Mhm. te sénégalais lu mu laaj nga ne loolu dóor. fi. mais du waxal allemand ba ñuy jàng fii leen ko jàngee. lycée Blaise Diagne. dëgg la 2 c'est important que ni produit bi ñu wone parce qu'en fait euh, xëy na ñi ne bitim réew ñoom ñoo soxla mbubboo que ni moo sud-africain la wala et cetera je le répéterai jamais lañ doon wax. mais yow bëgg nga Afrique du Sud tam. waaw bëgg jik ma loolu la quoi c'est-à-dire qu'en fait artiste bu nekk am nga xëy na club wala fenn fu la gën a jik waaw Sadio Mané football na fu waaye foog naa Liverpool jig na ko. Mm-hmm. bon Afrique ah. du Sud mooy sa Liverpool daal. waaw pour l'instant parce que je pense que ni euh, boo nekkee artiste am jeune carrière mhm. euh, ñu sélectionné la ci événement bu mag comme coupe du monde mhm. nga jóge fa xëy na euh, label yi fa nekk comprendre sa musique jox la opportunité nga exister xam nga avec tous les moyens yi ñuy ba pare nag et puis Afrique la nekk mhm. man lu ma a si dëkk ba c'est que m'a obligé à culture wala na la da ngay woy anglais wala et cetera machin au contraire da nga yegg ñu ne la exactement euh, yow fan nga jóge nga ne fa di nakki nakki naan ay franco sénégalais ñu ne la Diouf nga sant même si t'as d'autres nationalités mais sénégalais nga mm-hmm. xam donc euh, bokk na ci lu gën a tax ñu gën a renforcer suñu suñu cosaan gën a xam euh, ñan lañ doon après c'est pareil c'est pas des pays parfaits mm-hmm. bokk na tamit dëkk googu lu gën a tax ñu gën fong fonk suñu dëkk parce que boo génnee ci nga gën a xam fii li ci am nga xam que ni ñun am na paix sociale bu ñu fooyee boo xam ne. Mhm. amul feneen. Mhm. waaw. ñu war ñu ko sàmm nag. bu baax. te mhm. téye ko bu baax. léegi bu ñu boo ñëwee le six ñëpp taw. dinañ tàmbali ca Maguette Wade ba léegi. Maguette Wade men <laughs> men du émission cosaan la woon. nga nag. non non boobu xale yu bëri dañ koo ragaloon ay eh waay cosaan bi ndeysaan je sais même pas pourquoi. Mary waa ci xale yooyu la mooy bi kii daan ay waay cosaan fekk nag ak borom grand boobu bi mu doon def nii mel ni éléphant bi dafa mel éléphant <laughs> wala leer laa la wax. yéen a bokkoon classe xam naa ko wuyu ma j'étais xale xale. fekk ku bijou xale la wax. bu fekkee ah, Maguette Wade daal. Um, ah Maguette Wade yéex naa arrêté mais bijou bijou xale la wax de. yéex naa arrêté Maguette bijou xale la woon man 4 ans la amoon xaw ma 3 ans arrêté. Maguette Wade ban année la woon. te da daan am kooku. mais j'avais 3 ans xaw ma 4 ans. ah c'était là en quelle année. mais je sais pas j'étais j'étais eh, enfant moi je savais pas. yaa ngi egg sa bokkoon classe may ñu jaar waaw. quatre ans. te man boobu yéen a ma mag mairie boobu ëppal nga quatre ans. mairie moo ngi sa bokkoon classe. man ma yéen man mardi prochain dinaa leen indi preuve que mairie moo ngi exay dex sa bokkoon classe. <laughs> ba prochain en attendant euh, mardi prochain exay moo dina ñëwaat ci pour gën a waxtaanee vendredi bi mooy xew euh, le jardin pour ñun ñëpp ñu mën fa dem mais dafa am loo xamante ne Exidex daf ko que euh, artistes yu bëri actuellement ñu ngi koy pratiquer muy placement de produits dans dans c'est vrai que d'habitude da ngay def sa spot publicitaire nga nga jël sa sa sa produit wane ko mais